tam, gronie. Wyma! Wyma! Wyma ty! Ah, muda ya. Ah, ah, muda, ah, muda. waa waaw ah. ah, mbokk yi gis ngeen uh, lii lañ doon dund fi nga xamante ni moom mooy uh, uh, place la nation jaar lycée Blaise Diagne mais une fois que oto yi ñëw ba côté lycée Blaise Diagne ñoo manifestant yi Karim Karim Khouroukha Didier Malick Guy Marius Sagna ak ñeneen ñu ñu àndal waa FRAPP France dégage nitu dëgg ak ñoom ñëpp dañ leen daal di arrêté dañ nekkoon seen biir oto mais ñoom ñëpp arrêté nañ leen kon loolu mooy manifestation bi nga xam